asalaamaaleykum ñu ngi leen di jaajëfal sama gars yi di leen bëggee di leen wax ngeen dal ak jàmm ci la sportif di leen wax aussi tamit ngeen di abone te bu leen fàttee di aimer vidéo yi euh, ñu ñëw nag ci euh, comme ni nga xamante ne si noonu leen ko waxee woon muy kiis euh, bi nga xam dañ koy def mu nekk pour mën a dem seetaani match Sénégal Égypte bi nga xamante ne si le 29 mars lay am fii nii ci Sénégal stade. Ablaye Wade foofu ca Diamniadio danoo bëgg a sénégal yi en tout cas le maximum ñu dem seetaan yi li nga xamante ne si mooy match bi démb lañ ko tàmbali def première vidéo résultat yi dinaa ko joxe joxewaat aussi tamit question bu bees bi déjà am na ñett ñoo xamante ne si ñoom gañe nan ñoom am nañ seen ticket incha allah mën na dinañ bu leen neexee ñu dem seetaani ji macc bi foofu ca stade Ablaye Wade mais dafa am loo xamante ne si nag dama koy préciser waat. pour ñi nga xamante ne si xamuñu wala ñoom ba léegi dañuy continuer di ma woo ci sama téléphone wala di ma envoyé message ci whatsapp bi naan ma ticket laa bëgg ticket laa bëgg bu ma sañoon Sénégal gépp dañuy am ticket gratuitement bu ma sañoon en tout cas damay may ay ticket yu ëpp li nga xamante ne si moom laa programmé nii te en tout cas comme ni ma ko waxee bu wërsëg bi gënee yaatu dinaa yokk ñett ticket yi nga xam dama koy def par jour ñi may woo ak di ma envoyé message. du foofu laay maye ticket yi du ci téléphone bi du ci dama laa xam du ci danoo yàgg waxtaan whatsapp wala yu demee noonu ni may maye ticket yi mooy ci chaîne bi nga xam mooy le sportif na ngay ñëw nga abonné vidéo yi ngay commentaire maanaam di tontu ci li nga xamante ne si maa ngi koy laaj muy question bi boo trouver ci ñi nga xamante ne si dañoo trouver boo ci bokkee sa chance nekk ci mën nga bokk ci ñett ci ñett ñi nga xamante ne si dama leen di tànn pour ñu gañee pour ñu gagné. Euh, ticket pour mën a dem seetaani match ba bu loolu jàllee aussi tamit am na loo xamante ne sii nit ñi dañuy woo naan ñu seen média suñu xaalis mi ngi nii ñu envoyé la nga jëndaaleel ñu ticket wala yu demee noonu en tout ñun jaay ñu ticket dañuy jënd di maye mais jaayu ñu ticket ticket yi ñu koy jaay ñooy jottali ñooñu la fédération sénégalaise de football di liggéeyal xam nga ni fédération bi ñoom jottali lañ jox ticket yi pour ñu koy jaay jottali boobu nag seen numéro téléphone mi ngi nii 77 la. 715 41 41 wala nga dem seen site internet 3w 3w euh, point gaynde yi point com en tout cas comme ni ngeen ko gisee ci image bi point de vente yi jëppal la ci wetu commissariat de police bi Ouest Foire fi jàkkaarloo ak Brioche Dorée bi Liberté 6 ci côté Jolof Chicken bi Auchan bu Zac Mbao dan ko fay jaay Auchan bu Mermoz dan ko fay jaay Auchan bu Thiès dan ko fay jaay Auchan bu Saint-Louis dañ ko fay jaay Auchan bu Mbour tamit dañ ko fay jaay en tout cas sama waa ji bi moom laa yóbbante voilà incha allah moom suba dina ma jëndal ay ticket mu nekk ticket yi nga xamante ne si dama leen di maye donc gars yi ñooñu ñoom ñooy jaay ticket yi question bu démb bi nag jour bii comme ni moo ko làkkee nii laa ko làkkee nii bind leen turam ci commentaire yi en tout cas ñu baree baree bari trouvé nan gis naa ni gars yi xam nañ jour bii mais comme ñett rek laay tànn loolu moom moo tax ñoom bokkuñu Euh, ci ñi nga xamante ne wala euh, ñeneen ñi nga xam trouvé wuñu mën nañ continuer di jouer ñoom aussi tamit mën nañ am chance su gagner comme ni Saliou Ndiaye gagné ñi gagné ñi ngi nii voilà jour bi Lamine Sané la sax ah, xaaral ma wane kanamam ba pare mi ngi nii euh, Lamine Sané la international sénégalais. ki gagné Saliou Ndiaye la jarul ngeen may bindal joueur bi fi mu jaaree wala ban match la bu ma laajee turu joueur bi rek yéen bind leen turu joueur bi kese jarul sax ngeen di sonn ci commentaire yi di ci dolli leneen. voilà moom Saliou Ndiaye gañe na ci nag fi nga commentaire woon nii foofu ngay dem commentaire at fa sa numéro téléphone ñu jël ko xool nu ñu def ba jox la sa ticket. keneen ki Ibrahima géey la Ibrahima géey moom aussi tamit gagné na Lamine Sané la bind yow tamit comme li ma wax Saliou Ndiaye. fi nga commentéeroon nii foofu nga may bindal sa numéro téléphone ñu woo la jox ko ak yow jox la sa ticket keneen ki mi ngi bind bio bi l'officiel moom tamit gagné na Lamine Sané la bind en tout cas yéen boo leen xoolee di ngeen xam seen bopp di ngeen xàmmee seen bopp voilà envoyé leen ma seen numéro téléphone ñu envoyé leen euh, seen ay ticket laaj bu bees bi nag comme na woon fa woon jour bi nga xamante ne si làkk nañ kanam gi wax leen ñu jour bi nan la tudd turam nan la bind leen ko ci commentaire yi en tout cas gars yi bon chance yéen ñëpp ñu ngi leen di ñaanal ngeen gagné euh, voilà comme ça di ngeen mën a am ticket boo xamante ne si dina leen may ngeen dugg ca euh, ca stade euh, Ablaye Wade foofu ca Diamniadio pour mën a seetaan match Sénégal contre Égypte muy retour bi nga xam le 29 mars la incha allah gaynde yi ñu ngi leen di ñaanal ndam. muy match ale muy tamit match retour manko wuti ndam li gars yi ñu leen di jaajëfal incha allah xam naa ba suba beneen vidéo boo xamante ne si comme bii lay nekk pour mën a gagner ay tickets.